wax lu ñàkk teggi ne njiitu réew génne xibaar bu wéeru la wala wax nit ki te tegu ko fenn loolu yépp li di code pénalu Sénégal téere bu ñuy sukkandiku ngir atte moo ko wax bu ñu demee nag ci article 255 bu code pénal ñu ni fësal wane jëlaat lépp lu nga xamante ni ay xibaar la wala jëf la te wéru la ay daanam mën na dem ba ñetti at suñu jëlee li di article 265 ci code pénal nga xamante ni dafay daan lépp jëmale ko ci njiitu réew moom article bi li la wax mu ni nekk ci peñ ci wax loo xamante ni dafa nekk lu dëng jëmale ko ci njiitu réew daan bi mu ngi toll juróom benn weer ba ci ñaari at wante wax yu ñagas yooyu mën nañ ko xoolee ci ñaari fànn benn bi mooy njiit bi su ñu ko tuddee ci lu mu àndul mën na porter plainte ki ko wax wala mu def ko dañu koy topp beneen bi mooy kuréel yi ñuy jiite di atte nga xamante ni ñu koy doxal kenn bokk na ci muy procureur Sénégal nga xamante ni justice di yoon dafa bootu ci état ministre de la justice di koy jiite yenn toppi yenn saay dina àndee jixi jaxa yu bëre njiit yu bëre yu nekk ci média yi wala ñuy politique dafay yomb lool ngir ñu jàpp leen jàpp leen dugal leen prison mu mën a nekk diffamation offense wala leneen jooju yëpp nga xamante ni suñu code pénal moo ko tënk bàyyeewul dara li nga xamante ni moo di liberté bu fekkee nit ki dafa bëgg a wax yenn saay xalaatam wala mu koy bind ki mu mujjee daal nag moom mooy ki fi nekkoon premier ministre di Hadjibou Soumaré dafa bind génne ñu woo ko jàpp ko loolu le mën lalu ñu mën ko gis génne ay bataaxal yoo xamante ni njiitu réew lay waxal te anamam wéru la loolu nag lalu ci ñaari bànqaas benn bi mooy su firnde amul wala sax wax sa xalaat loolu nekk jëfinu xalaat boo xamante ni luwaay yi ñu fi jot tudd yëpp daf koy